julli nag programme bi suñu borom moo xoot inna salaata kaana kitaaban mawquuta waxtu suñu borom wut ay waxtu amoo droit xëy julli sa julli yëpp amoo droit yeexe sa julli yëpp julli ko daa am waxtu ko di ko julli ca jàkka ja jullig mbooloo sunna la sunna ñaar la su fayaf ak suñ fedd li sunna yi julli ci jóob jàkka nag sunna suñ fedd li la sunna suñ fedd li mooy yonent bi daan digle di ko def bëgg sutuñ ko sunna su wayaf nag mooy soo xam ne gis nañu def ko waxu ca dara mbaa def na ko waaye leen mu def leen mu bay julli ca jumaa ja nag wala ca jàkka ja nag sunna suñu feddli la itte yii ñuy dem ca jàkka ja bala ñu la faa loolu yóbbu gàcce la ab julli day dem ci jàkka di julli ji su na suñu moo ko waxoon ne ne jamono ngi ñëw ñen ñeentay gën a tumuranke ci jamono jàkka ci mpénc kaamil ci taabal ci la bokk boroom xam-xam ci la bokk dina jàkka ji tabax ba mu ne yàng-yàngaaral te kenn du fa jullee daf na ñeent yi lislaam dana dem ba lislaam tur ba dong nga fay des tur ba dong nga fay des ko doo jullit mu xeexa yow te def du wax waxi jullit du ko def alxuraan mbind ma doo fay des jàkka yi tabax yi doo fay des la yabqa fi l islaam ila ismuhu wala fil quran illa rasmuhu wala fii masajid illa binaahu ñetti ñu ñu gëntu mën nga ci jamono kon nit ñi nañu julli ci jàkka yi di julli ci ajjuma yi ndax julli ci ajjuma farata la julli jàkk suñu suñ feddali la te moo tax ñu indi ñi fi te mooy li nga xam ne su ko suñ boroom laajee mu mel ne dafa yéwén man naa yóbbaale lépp waaye su manqué rek jafe-jafe daal am kon am doole gum am doolaa tax suñ boroom gis gën yooyu yén saa sa ba mu ñëw fi moom mu soog koo joxalante ak moom yéen wu ko kenn moo ko wax direct ndax ñun ñii ku ci amoon soxla su la ñor da naan sa doom demal la wóol ma diw ba ñëw mbaa yow nga dem ba ca diw waaye bu la ñor naan demal la sa baay diw nangam demal la sa yaay diw nangam waaye dama la ba sa baay diw moom ak xool sa sa baay diw ndax ma nga fa nga dem yooyu soxla bokkuñu de sëriñ Tuubaa mi ñuy yaakaar nag julli di wax ne am na ñoo xam ne mësta moo daan jiital jàkkaa boppam mësta jullee mbubu timis jullee ko tàkkusaan dañuy sàmmante akuk laab ndax julli du baax lu laab julli sallallahu alayhi daa romb ab barab gis fa ñaar ñu ñuy mbugal inna xaasaani luy xaasa baani ñaar ñi ñu ngi leen di mbugal de ñu ne kenn ki lu ko dal mu ne kenn ki daan da daan rambaaj rambaaj mooy toxal ay wax ci barab yóbbu ko faneen ngir yee fitna donte sax dëgg la keneen ki daf daaw tuur ndox mbaa mu dem ma nag defar boppam ba seet soo ko dem loolu day nag loolu day war a ñu mbugal nit kon julli laa ba koy njëkk jël sàmmante akuk laab dafa jëfandikoo farata yàlla ji muy def julli te da koy dafa sunna nañ fa fam ko war a jullee waaye ni ci dëkk si yow nekkul ca jàkka ja wala da ngay tànn timis nga fay dem wala wala wala fajar bu timisee nga ñaam nga dem ñaan ngir bañ a dee bu fajaree nga dem ñaan ngir am nawet mbaa nga am wërsëg kon jaamu yàlla say soxla ngay jaamu te defar jikko yi wax naa ne yonent bi sallallahu alayhi mu defal yàlla bari na de julli na ko ba tànk yi di metti di newi lu ne daj na ko ci ci xare yi lu leen def nañ ko ko waaye yàlla tudd tudd ko tudd tuddalu ko genn ñàmbaar lu dul yaa rafet jikko yonente bi li ko yàlla defal yaa gën ñëpp jox ko lu mu joxut kenn jox ko li gën li gën a loon ñëpp mu xañ ko jox ko ko moo ko xeetam ba ca xelam demee ba muy sant yàlla dane adaba ni ray fu asana tay bi loolu ko félicité li ma mu sant yàlla mooy yàlla da koy yar bi moom it mu wax ne mu mu ñu julliloo yonent bi moo ñu woorloo moo ñu joxeloo asaka waaye li wax lu leer ne na buxistu li utammima makaarima axlaaqi du du tax waxu dañ maa yónni pour ma julliloo leen waxu dañ maa yónni pour ma woorloo leen daf nañ maa yónni pour ma rafet mot li ci koy rafet yi ndax yonent bi am na fukki at ak ñaar julliwut xanaa julli timis waaye julli julli julli lowutoon kenn bi ko yàlla yónnee am na fukki at ak ñaar jikko yi lay defar biñ ko yó jul bi julli ñëwee ak bi mu demee Medina benn at képp la ñeent fukki at la ko mu am màkk fukki at ak ñett am fukki at dundam gépp juróom fukki at ak ñett ñeent fukki yi dem na ñu soog ko yónni mu des ñaar fukk ñaar fukk yi fukki fukk ak ñett yi màkk la ko ne mu des fukk mu nekk Medina fukk mu gën a àdduna te fukki at yi ak ñaar yu njëkk yi julli wàccagut ci moom kon doon defar jikko yi ca lam fa fekkoon ca jamono yooya ci rey doomi jigéen yi jigéen du donn comme man sama morom duma jaay jigéen jàpp ne as góor def ko jaam yooyu la doon réglé fukki at ak ñaar soo wàcc moom julli maam benn at màkka dem Medina indi boo xaajee dundam bi ñetti xaaj pas-pas moo indi diine fii tey ndax ku am ñi juróom benn fukki at ak ñett ñeent fukki at yi kenn yoo joxul la loolu dara mu def ñaari fukki at ak ñett ci lay liggéey lislaam bépp kon boo xaaju duna bi ñetti xaaj benn benn solus bi li saa ci la indi ci la tasaare lislaam ñaari fukki at ak ñett fukki at yi ñaari julliwu ko kon dundam boo ko xaajee ñetti xaaj xaaj bu mujj bi rek la suñu lislaam moom mooy tasaare lislaam ba mu fii tey kon nit ki la muy wuyoo da koy nuru boo ne Moodu Moodu luy wuyu boo ne Samba Samba lay wuyu jullit nga del julli bokkati moomu tur bi de nañ delloo yàlla lim moom te bàyyi koog suñu bopp ndax ne moom ma ne li ma indee mooy ngeen jaamu ma kon ku ne war ngaa jéem a xam bala ngaa jaamu yàlla nan la ñuy jaamoo yàlla mooy jàng moo jiitu lépp yonent bi sallam baat bi ne ko ci noppam mooy iqra jàngal xam na ne jàng boo amut islam mënut a dëgër lu islam mënut a wér Sëriñ Tuubaa nee na man kaana jahilan bi fardihi wala misal fa nafsuhu abad wa salam fa qultu xat xarama rabbuna ala kulla mukallifin ala ma nuqila fihlan fihlan bi xayri xilmi xukmi sarhi fiihi fasa fasa nasu dalilun xat yi borom xam-xam yi dañoo werante ñii naan bu imaam bu xam julli jiitee julli rukkooyee mat lépp mat sa julli baax suñu tubaa ne déedéet man li ma wax man suñ faqul man suñ tubaa li ma wax mooy araam na ci mépp mu kallaf mu jëf-jëf jenn jëfi sarixaam te xamul atteb sarixa ca jëf mu ne képp ko réere say farata ak say sunna te ko mooy jàngoo ko tooñ nga sa bopp alal nga sa bopp ku nekk ci ñun am nga loo xam ci ay problème yooyu rek yoo xam ne moo gën a jafe xam faratay julli ak sunnay julli ak faratay koor ak sunnay koor faratay njàpp sunnay njàpp ak farat aj maak sooy farat aj maak xam nga lu ko ëpp day rek xam nga arafi alxuraan yi ñaar fukk ak juróom la yow xam nga xam nga lu ma téeméer ëpp lu ëpp téeméeri nit koo gis ne kii di wa te mënoo xamee faral arafi alxuraan yi ñaar fukk ak 28 képp la mënoo ko xam yunus saa sallam ne ne jëfi kuy réer ki réer fanaanee jaamu yàlla ki am xam-xam tëdd di nelaw mu ko ëpp tiyaaba ashadu an على ال axkama bi xukmihi fi xalqih la muaqiba li xukmi wala radda lima qada qasama al arzaqa wal ajala bayna ibadih haza manaahu wa haza ataah wa haza ascadahu wa haza ashqaah axmaduhu ala ma ataah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah shahaadatan man shahidaha yablughu munaah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائما متلازما إلى يوم عرضه ولقاء أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه wa laazimu taatahu fi taatihi ridaa wa anhaakum an ittibaahi alhawaa faqad dalla man ittabaaha hawaa wa aamurukum bi taajili tawba qabla an yabluga alajalu muntahaa wa alamu yaa ibaadallah anna man zakara allaha zakara wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah waxzaru zamaanakum haazaa innahu zamaanun qalla xayruhu wa kasura balaa wastaxala kullun minna bi talabi dunya wa xafala alxaafiluuna an ilmawt fala xawla wala quwata illa billah wa saara diinu gariban kama kaana mubtada fawa asafa wa aqilata xiilata fi yowmin tazharu fihi alfadaix wa tashhadu alayna fihi aljawaarix walxaakimu huwa allah yowma laa tamliku linafsin li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah wa fi lxadis arbaun min alchaqaawa jumudu alcayni wa qaswatu alqalb walxirs wa tuulu alamal wa fihi ayda inna laha yabsutu yadahu billeyl liyatuba musiu nnahaar wa yabsutu yadahu binnahaar liyatuba musiu leyl xata tatluca alchamsu min magribiha yaxfiru llahu li lakum wa li jamici almuslimin الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفة كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده الذي يذكره بها, يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرف به الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام دائما متلازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواعظ كل جمعة وأنتم عنها معرضون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أين الأنبياء أين الأولياء أين المرسلون أين الأمم الماضية أين آباؤكم المقدمون قد صاروا والله في التراب وهم الآن الذائب والمتخطئون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون wa fi lxadis aksiru min qawli laa ilaha illa allah qabla an yuxaala baynakum wa baynaha wa laqinuha mawtaakum wa fihi xayrukum man taala umru wa xasuna amaluhu wa charrukum man taala umruhu wa saa amaluhu yaxfiru llahu lii wa lakum wa li jamii almuslimin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 عليهم وآياته ويزكيهم وجعل لهم الكتاب حفظا أنت معهم إن كانوا من قبلك فغالبين كانوا يشيعا فالله غير الكافرين الله أكبر ربنا ولك الحمد